donc mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm li ñuy def nag dañu ko def ak suñu tayeefu bakken ak suñu teeyu bakken ak suñu teeyu xel ndax suñuy mbokk suñuy wéjur suñuy xarit ak suñuy am di jàmm bëccëg a ngi nii amatuñu jàmm ci li nga xamante ne mooy wax bu ñaaw bi dox ci réew mi ak ci dëkk bi taskatu xibaar yi di ko relayer ak réseaux sociaux yi ñun dañu dénk ab dëkk bu tudd Yoff ñu fekk fa ay gor yu ñu wóolu dénk ñu jàppale ñu am na ci Yoff fu ñu oowee cité jàmmalaay di ndey ci bépp gox bu ñu sanc ci Yoff ci bees bees bi ñu fa demee bi ñuy campagne ñoom dañu xamal seen coono bi ñu dëkk ñaar fukki at ci ren coono bi ñu si daj pour lan mën a am géej ndax ñëpp xam nañ ne Ndakaaru foo dem foo làmb géej gi privatisé nañ ko ay nit ñoo ko moom askan wi moomatuñu ko te ñun nag askan wi moo tax ñuy sol ci wàllu boobu nag bi ñu demee ba toog ba def ay turne ba gëstu waxtaan ak waa collectif bi ku ci mel ni suñu yaay ji su fi njëriñ Diouf toog fi di symbole ci xeexu littoral bu jàmmalaay biñ ko déggee suñu yaram dafa daw daw ndax ay nit lañ dawit ndax autorité publique la la war mooy taxawu sa askan ci wàll boobu nag ñëpp xam nañ ne lépp lu jege tefes décret présidentiel moo ko mën a déclassifier nit ñi mën ko dëkke wala man koy jariñu ci wàll boobu ndax président Macky Sall moo ko wax nee na rapport yi mu jot poñ bi ci njëkk biñ koy alerte mooy les conflits fonciers donc képp ku am conflit foncier à la rawati bu nekk ci booru géej ba kene lool ci moom ngay dem pour ut ay pexe pour askan wi jariñu ci wàllu boobu talaata bi ñu weesu ànd nañu pale pour def liggéey boo xamante ne séq nañu ko ak ñu ñu waa présidence booleel muy le ministre d'État directeur de cabinet du président Mahmoud Saleh ah le ministre conseiller Mor Ngom ñu ànd ci nag ak suñu yaay Soufi Diouf ànd ci ak le septième adjoint au maire Ibrahima Fall Ousmane Fall ànd ci ak la conseillère municipale secrétaire élu Mame Binta Diop ak it ki ñuy wax Samba Dia jiite conseil de quartier bu jàmmalaay lu tax loolu pour bañ ëllëg ñu teg ma tuuma ne demoon naa pour it li ñu wax waa Yoff ne kaay ñu ànd liggéey mooy l'axe 1 de notre programme la gouvernance ouverte ci wàlla boobu la ñu àndee ak góor yu baax yi dem palais de la république bi Sénégalais yëpp bokk bi Sénégalais yëpp moom ñu fay yore askanu Sénégal gépp ak alalu réew mi ñu war a waxtaani nag mbiru askan bi xanaa nag loolu kenn du ko tere biñ koy def nag bëccëg ndar kàmb lañ ko def ndax ñun duñu laxatu ay gor ñoo ñu jur fii ci Cap Vert biñ koy biñ koy def tiituñu si parce que waa Yoff ñoo ñu jox mandat pour ñu doxal leen waxal leen te waay ngàll ñu nee décentralisation wax collectivité teritorial mais kan mooy suñu yaay kan mooy suñu baay état du Sénégal naka nga mën a nekk maire ci dëkk nga ne doo wax ak état doo wax ak ñi amee état xanaa fan yow fas yéene woo liggéeyal sa askan ñun nag muy taw muy naaj muy ngelaw ngelaw googu taw beeg naaj bi ci dal lay mujj rek àlla kulli àll ñun nag Seydina Issa Laye Samb la ñu tudd dëkk yoof màggee yoof yaroo yoof di sant nag bu baax collaborateur président yi ñu dalal déglu ba tey suñu doxalin tax na ay mbexe mu ngi jug pour ay pour ay maanaam solution am suñu juddu nag suñu taxawaay ci yoof may ñu ñu jaay suñu ngor di def lu ñu gëmul Seydina Limaamu alayhi salaam mooy suñu maam loolu la yàlla dogal loolu ku mu dayul ci àdduna du alalu àdduna moo lay doy ndax nag dañu judd dañu judd sant yàlla regg démb nekk ci nguuru àdduna ci diine balaa nguuru àdduna nii ñu koy yor suñu loxo donc du pouvoir moo ñuy tiital du pouvoir moo ñuy soppi ba ñu falee newoon nañ leen ne ala kulli àll du nguur moo ñuy changé du nguur moo ñuy soppi waaye ñun ñooy soppi ni nguur du doxale ñu teg ko ci pencoo ak dëgg ak njub te loolu mooy suñu dëkk ci ci wàllu boobu nag la ñuy dalal xelu askan wi maa ngi bokk fu ñuy wax yewwi askan wi ànd ak ki ñuy wax Khalifa Ababacar Sall ànd ak ki ñuy wax Barthélémy Dias te man réeruma ak ñoom ci lépp lu may def nag ci sama activité ci politique ak ci mairie bi ñoom nag ñu ànd bokk ci coalition bi ñuy wax Yewwi Askan Wi ñu ñu investir ñu ba ñu am ndam donc nag gor ngeen ko séexal du tey laay dem du suba laay dem président Macky Sall benn yoon laa ko mas a gis mooy bi ñuy teeru Lions mu félicité ñu ci liggéey bi ñu def ba ñu am ndam kon nag dañuy dalal xelu askan bi wax leen ne fa ñu nekkoon fukki at ak juróom yi ci ginnaaw ba yàlla defal ñu ndam gisuñu alal wala nit bu mën a fëq suñu bët fëq suñu xel tiital ñu xoxatal ñu ba ñu tegg ci ginnaaw taxaw fa ñu taxaw la def riigu ci ànd ceeg waa Yoff nag pour lan ak njub ak dëkk ak Yoff mën a jëm kanam mën a am fii ci suñu suuf looloo doon kàddu yi di leen sant di leen baalu ax ndax guddi gi kenn nelawul kenn nelawul ndax coono bi ndax coow bi waaye nañu dalal seen xel bu dul woon tiitaange mbokk yi tiitaange xarit yi ak kilifa yi mën nañoo toog ñetti weer lu ñu wax ndax Khalifa Ababacar Sall daf ñu jàngale boo nekkee ci liggéeyal sa askan boo nekkee ci yoon tu n'as pas à te justifier à loolu dama bëgg mu leer mënoon nañoo bàyyi ba niñ ko defee yoon yi passé ba conseil municipal mhm. waxtaan seeg conseil yi te boobaa du jur dara ci suñu diggante ak ñoom parce que ñoom wóolu nañ ñu xam nañ ne gor lañ ko séqal may dalal nag ci mujjantal gi xelu jeunesse sénégalaise gis nañu lépp baal ñu ñëpp suñu wéjur nag kilifa la ci réew mi set la ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ça c'est personnel ñu koy saaga saaga yu ñaaw waaye ma leen di yóbbante nee na jéggal na ñë ndax doomam moo yëkkati loxoom man it doomam ma koy jégalu di jégalu sama kilifa yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.